min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwan wa tamkin yaquduni maaka ya kitaabu man xaala fi kadalika alkitaabu zintu makatiba li waji munzilik bika wa wazni li jinaan yen salik raafaqtani mushayyaan lil janna daaril xaraari wal muna wal minna jaaltuka dahra xalilan ya xabib ya man ganitu bika an kulli tabib baaraka lii fii umurillahul karim bi ko wali taqudu ajran la yarim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi ni nii baax di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñ borom yàggal ko fi loolu tànt ko wér di ñaan suñ borom lépp loo xam ne rek naan la ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi suñ borom may ko kàttan gi ak tawfeex gi mu ànd kook taalibe di nuyu waa mbooloo mañ moo noori ni di leen ziare di ñaanal ñëpp jàmm di euh, ñaan suñu borom defal ñu taw tawfeex ci liggéey bi nga xam ne moom lañu sóobu di émission jaalibatul buruur ngeen koy ànd seen mbokkum taalibe Zaid Ba tey nag xam naa comme ni ñu ko waxee woon rek ci commencement émission bi waxtaan yi ñu doon def ci yi passé mu jëm ci njariñal xasida yi ginnaaw bi ko Euh, jeexale dañoo fas yéene nag commencé invitation yi ak yeneen xam-xam yu am solo tey nag ñu fas yéene dalal suñu gan gu tedd yi di Serigne xaadim Samb yaakaar naa moom jarul ñu koy présenté ndax mbokki taalibeek ñu bari xam nañ ko rawatina ci yoonu murid wi nga xam ni ci lépp lu muy def ay waxtaan ndax yaakaar naa ñu bari yàgg nañoo teewlu ay waxtaanam ñu koy invité ci euh, télé yu mag yi muy jàmbaar loolu ci xam-xam ñu bokkoon jenn daara ju ñuy yëngatoo di jàng muy Azhar bu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké kon moom moom mooy suñu invité tey jii suñu thème bi tey jii nag ñu ngi ko fas yéenee jëmale ci a Cheikhul Khadim wal Qur'anul Karim muy sëriñ Touba ak Alqur'an ndax ku ne xam na ni Alqur'an mooy dusturul mu'minina mooy téere bi téere bu mag bi mooy téere bi nga xam ni moo moo tëj mboolem téere yi mooy téere bi nga xam ni moo matale moo indi la téere yu njëkk ya indi woon mooy téere bi nga xam ni mën ta ñàkk ci dara moo tax ñuy wax ni man ihtamma bi bi qur'aani yi fa xad ihtamma bi islaami yi wa man ibtaada an qur'aani yi fa xad ibtaada an islaami yi alquran kon mooy li nga xam ni jullit bi bu ko yittewoo yittewoo na diineem yittewoo na lislaam waaye bu ko wanee ginaaw rek maanaam bàyyi na diineem bàyyi na lislaam alxuraan jooju nag ci la ñu fas yéene waxtaan tey waaye naka la def ak seexul xadim ku ne xam na ni wax na ci ay mbindam yu bari malakanil xuraanu tam ni kan yadum ak euh, suñ borom may na ma alxuraan suñ borom jox na ma alxuraan alxuraan mooy sama àndandoo mooy sama wéetal mooy sama docteur lépp lu ma am rafaani ilal jinaani law bi ka wala ilaha illallah nee na ci alxuraan la ko suñ borom yëkkatee ba keroog mi dem àjjana kon Sëriñ moomu naka la def ak alxuraan tey moom lañ fas yéenee waxtaanee tey jii waaye xam naa waxtaan bi dañ koy tënk ci ñetti tomb muy tomb bu njëkk bi muy fadailul quran wala euh, taariful quran alxuraan mooy leen ak yi ngëneelam ñaareelu tomb bi mooy euh, sëriñ bi euh, fan la fekkoon alxuraan ñetteelu tomb bi mooy bam ko ba mu ko fekkee foofu fan la ko jëlee ak fan la ko yóbbu kon ñu fas yéenee jébbal kàddu gi rek sëriñ xaadim Samb bu ko defee mu présenté buñ pare ñu jublu ci waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah sëñ xaadim wa rahmatullah aousubillahi samin alim min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wa zakkilu bi waftaxan mubinan la yurali mistiya waliya hab xasaxatan wa wa fi siraati yasiril murura kawin liyal yow ma tey siiran yu sahilu li saaban bi ijaadi ma xadd kaana fuxdaana sabit janaani wa saddit mantiqi waqini laxnan bi iadaabi ma xadd kaana wujdaana wajaal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida barkeb seyxul xadiim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyub jullit buy nuyu ay mbokki jullitam nuyub taalibe buy nuyu ay mbokki taalibeem di jiital ci nuyoo bi suñu yaakaar a Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ñaan suñu boroom guddal aw fanam wéeral ay cëram ba lim naar pour liggéeyal ko Seyxul Xadim mu def ci lu kawe njortam di nuyu bu baax mbooleem koo xam ne yaa ngi topp Majmahun Nurayni rek ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaare di nuyu suñu xarit sunu soppe sunu genn wàll sunu lépp di borom xam-xam boo xam ne dañuy dalal rek waaye lii muy li ñuy li ñuy dalalee moo ñu ko dàq muy Serigne Zeyid Ba ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal te di la ziyaare di nuyu mboolem koo xam ne rek yaa ngi ñuy topp ba suñu maan yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziyaar xam naa di teg foofu kàddu gi di ba mu del siwaat ak jàmm rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay xaadim jërëjëf kàddu yi rafet na loolu comme ni niñ ko waxee woon rek di nuyu baax tamit sëriñ Baara Gaye mi nga xam ne mooy ne ci caméra bi ak suñ mbàkke ñu leen nuyu baax di leen ziare di ñaan suñu borom defal leen tawfeex ci liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo ko sumb ñu dajeekee ngërëmal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul comme niñ ko waxee woon kon xam naa suñ tomb bu njëkk dañuy ñëw ci euh, buñ bëggoon a xam suñ xaadim alquran mooy lan mm-hmm. taariful quranul karim mm-hmm. ak euh, wa fadailihi maanaam ak yi ngëneelam mm-hmm. boo ñu ci mënoon a andil euh, defal ñu ci benn talxiis waaw bismillah tafadal jërëjëf Baye ci thème bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey te mooy alquranul karim mhm. alquran huwa kalaamullahi subhanahu wa taala mhm. wa asbaxat xaalidatan abada dahri mhm. alquran waxi sunu boroom subhanahu wa taala la alquran nag du mbindeef ndax ci sunu boroom la bokk moo tax sëriñ Touba ni benn xarab ci alquran moo gën rasulillahi sallallahu ndax yenent bi mbindeef la te alquran du mbindeef ndax sifatul mawsuuf bil xidam la mhm. te yenente bi mindeef la kon mindeef la gën mhm. moo tax sëñ Tuubaa ne fa xarfunal waaxid min alquraani xayrun min nabil xarab ci alquraan moo gën rasulillah ki salallaahu wa di waxe sunu boroom jóge ci moom ndax wali quraani fusta bi silaati mhm. salaasatun mina tanazulaati ñetti wàcc waay am awaluha rabbil izza mhm. summata saaniha min baytil izza saalisuha nag fii xaf di fii xalbi afdalil bashar kon ci sunu borom la jógee ca mhm. law ko a dikk ci baytul izza muy asamaan si ñu tiim mhm. doog a dikk nag ci rasulillahi sal alayhi wa sallam diiru 23 ans yi mu wàcc yeneen bi sal alayhi wa sallam kon bi mu jaaree ci jibril ba ñëw ci baytul izza ba ni mu dikkee nag ci rasulillahi ki sallallahu alayhi moo tax alquran du mbindeef ndax ci suñu borom la bokk mm-hmm. kon moo gën rasulillahi sallallahu alayhi wa mm-hmm. moo tax boo demee ci ulumul dañuy jàngale bu lay defal taarif mm-hmm. dañuy wax ni huwa kalaamullahi ani munazzala ala na nabiin zil ila alayhi sallallahu summa sallama wal ali wa sahbi wa man lahun tama wa fi tilawati lahu ibada liman hada bi ayihi ibada wa mujizun wa manxuulun lana tawaaturun wa misluhu ma dukkina nee nañ ulumul quran bu ñuy jàngale dañuy wax ne al quran waxi sunu borom subhanahu wa taala boo xam ne moo ko wàccee ci rasulillah ki sallallahu alayhi wa sallam 104 téere moo wàccee kaw asamaan muy xaddun 104 ñoo wàcc waaye bi mujjee wàcc nag te gën yëpp mooy al quranul karim ndax 104 yëpp dafa duggal ci biir al quranul karim ndax moom mujjee wàcc tawreetu Muusa injiilu Isa zabooru daawud alquran yaa muhammad mm-hmm. sëñ Moussa Ka wax kon moo mujjee wàcc kon waxi sunu borom la boo xam ni ci moom la jógee jaar ci jibril ñëw ti ci baytin izza ba ni mu ñëwee ci rasulaay diiru 23 ans li njëkk a wàcc nag ci moom mooy iqra mm-hmm. moo njëkk wàcc kon jàng mënut ñàkk ñaari iqra rek am ci alquran mm-hmm. benn bi ci àdduna la benn bi ëllëg yomal xiyaam la bi njëkk bi mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq ñaareel ba mooy iqra kitaabaka kafa bi nafsikal yawma alayka xasiba ñaari iqra yi ñu am ci alxuraan kon bi njëkk a wàcc mooy iqra bi mujjee wàcc nag mooy wa taqu aay bi mujjee wàcc mooy wa taqu yawman turjauna fiihi ilallah summa tuwafa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun mm-hmm. am nañu wax ni sax al yawma akmaltu lakum diinakum mm-hmm. wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum al islaama diinan moom mujjee wàcc mm-hmm. kon ci diiru 23 ans yii di makkiya yii di madaniya wa muddatu nuzuli kaafun suma jiim ala allazi rajaqahu kullu fahim yajun bi makka wa yaa bi taaba daaril huda wa diini wal ba kaafun suma jiim kaaf la jiim 3 la boo ko boolee mu jox la 23 tàmbalee ci faatixa mhm. jeexee ci naas yi mhm. ndax sunu borom boppam la ko tàmbalee waaye doomu aadama la ko tëjee mhm. booy njëkk a jàng da nga naan bismillahi ci tur yàlla tàmbale booy tëj kaam bi naan minal jinnati wan naa si mhm. kon boppam la ko tëjee tëjee ko doomu aadama moo tax boo jëlee baawuk bismi ak siinuk naa si da lay jox bassa bi firi tàmma kaamil bi mat na sëkk mhm. ngir yàlla teral gu mu teral doomu adama kon alxuraan a ngoog diiru 23 ans la wàcc Moustapha mhm. diggante Makka ak Madina moo tax Makkiya ak Madaniya moo gën rasulillahi ndax yenente bi mbindeef la te alxuraan sifatul mawsuur bil xilan daa bokk ci sunu boroom moo tax fa xarfunal waaxidi min alxuraan yi xayrul min nabil macha allah jërëjëf sëñ Xaadim euh, kàddu yi leer na loolu macha allah xam-xam bi tamit set na loolu comme ni nga ko waxee rek comme leeral nga ñu alquran mooy lan leeral nga ñu tamit euh, sifatun min sifatillahi subhanahu wa taala mhm. ndax loolu lu mat a bàyyi xel la xilaafan lil mu'tazilati li na bi xalqil quran ndax ñoom dañoo mu'tazila dafa bokk ci seen i pas ñoom dañ ni alquran mbindeef mbi maanaam yàlla daf koo bind mbindeef mhm. la mhm. te alquran kalaamullahi waaw waxi waxi suñu borom la kon tamit loolu lu mat a bàyyi xel la baax a baax a baax mhm. xamal nga ñu tamit téere yi wàcc ak ñeenti téere yi nga xam ni mhm. dañ leen cee war a ràññee muy zabour ak tawraat ak injil mhm. alquran ñëw ñëw di leen di leen tëj macha allah kon loolu leer na yaakaar naa mënuñu cee dolli dara euh, kon dañuy ñëw ci suñu ñaareelu question bi muy muy sëriñ bi a cheikhul xadim wal quranul karim mhm. ndax yaakaar na loolu moom lu yaatoo yaatoo yaatu la ndax sëriñ bi ku ne xam na euh, li mu liggéey ci alquran mhm. ak li ko suñ borom fayee tamit ci alquran waaw kon yaakaar naa tomb boobu moom dina mën a yaatu bu baax a baax a baax mhm. muy a cheikhul xadim wal quranul karim waaw bisimilah sëriñ xadim jërëjëf a cheikhul xadim nafsuhu wal quran sëriñ tubaa ci boppam jëmm la moom ji rek alquran juy dox ci kaw suuf la ndax ki ko seede Cheikh Abdoulaye Niass Kaolack la dëkk. 1921 mhm. wala 22 bi maam Mor Jaara borom saam génnee jamono ndax ay kóllëre la ñu woon. Mhm. bi muy ñëw di jaale si Seyxul Xadiim dafa ñëw sëñ Tuubaa gane la ko ba ba muy ñibbi mu yëkkati tafsirul ni jox ko boobu sëñ Tuubaa am ci réew mi. Mhm. bi mu yëkkatee tafsirul Jalaalayni jox ko mu jógee Njaareem ba dikkaat Kaolack ci la woo ab taawam maam xalifa ñas maam xalifa moo jur Ahmed Khalifa Niass. ak Sidi Lamine Niass. maam Khalifa. ma wax ni kaay nga taggal ma sëñ Touba. te boo koy tagg nang ci sàmmonteeg téere bi ma jox muy tafsiru jalaalayn daani ko nag maa ngi lay xamal ni alxuraan ñaar la benn bi mooy bi ñuy jàng bi ci des jëmm la juy dox te bu ko ku bëgg a gis jëmm ja xoola seexul xaddim kooku nag lëndëm ak suba la yàgg-yàgg ci leer la jëm xaadim rasool daani cas xalimaam ni at xaftanaa bi kitaabin laa nazira lahu arwa xalila saddana baadal wax yi huwal jalaalaani dégg nga hmm. huwal jalaalaani tafsirun li man mansibikum misbaaxu ilmin ka daw isubqi lamma nee na sëñ Tuubaa mooy misbaaxu ilmin man làmp xam-xam hmm. mbooleem kuy jaay xam-xam sëñ Tuubaa moo la ko ëppale ndax nee na kuy jëfandikoo ñaari rek maa la ëpp xam-xam te ku am àdduna kenn génn ci ñaari yi na képp koo xam ne nga baal ma ci kàddu gi maanaam jigéen mu nga lay nàmpal maa la ëpp xam-xam hmm. képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo ci li génne ci biir suuf làq naa xam-xam boo xam ne ba yàlla di wàcc dënn bi doo doo ko am mm-hmm. te ku nekk ci xam-xam booba nga am allamte nii ilman maa laa yafuusu bi man kaana duxnuhu xóotun aw yasqihi misxaabu mm-hmm. képp koo xam ne jigéen a lay nàmpal baa ngi jëfandikoo ci génne ci biir suuf yàlla jox na ma xam-xam boo xam ne ba li muy dem dënn bi doo ko am moo tax sëñ si Mbàkke Gaynde Fatma ni ni ma li muy bari bari xam-xam sama maam ko raw axnaf li muy lewet lewet ba boo jàngi moxtaru adam ñu la koy jàngal nee na sama maama ko raw xoolal sëñ Cheikh Mbacke nee na nag zéro faute mooy sama maam wax mm. wala zi axsana sattaaru siiratuhu wa am amma buldaanan wa awtaana fa maali ax na fa xilmun in xurinta bihi aw luqmaan asrika haazal fadl xadbaana mm-hmm. ne li muy bari bari xam-xam sama maam Seexul Xadiim ci boppam moo ko raw kon sëñ Touba alxuraan juy dox ci kaw suuf la mm-hmm. te ki koo seedeel mbokkam la bu ñuy wax Cheikh Abdoulahi ñas sëñ Tuuba fonk alxuraan lool bëgg ko lool loo ko mos a jox dana la tegal fee lenn dong la daan laal ci loxoom yu teddee mooy alxuraanu karim sëñ Tuuba loolu rek doy na kiimaan ci sëñ Tuuba daawul laal xaalis naaru gànnaar ba nee na ko yow rek yaay jël xaalis di ko fàttee ay paxi néeg kudul yow du ko def tafarraxatil amwaalu min ka sazar mazar banaanu ko laa tubxi wa kafu ko laa tazar seyxul xadim du laal xaalis loo ko mos a jox danaan tegal fee laal kaamil bi rek lay teg bu ko nit di si bu nee daa yor arxuraan sëñ Tuubaa dane da ngeen ma ko teral ba ko doog may génn mm-hmm. bu dee yurul arxuraan nag bu yàkkamtee na ko yeewi te bàyyil ma ko mu dem Cheikh Ahmadou Bamba ngir fonk arxuraanul karim mm-hmm. waaye nag sëñ Tuubaa ni arxuraan def ni yenent bi def noonu la arxuraan def mm-hmm. yenent moo dem ci yàlla ni ko boole mag sëñ Tuubaa mu doon ki may liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimahu wa abdillahi ala alladi talaba kawniyal xadim lahu salaama zil barriyatil xadim kon yenente bee ko sàkk pour sëñ Tuubaa doon ab liggéeykatam mm-hmm. noonu la alxuraan def dem ci yàlla ni ko boole maag ahmadul xadim ndax man dama bëgg ñuy ànt dootuñu tàqali ko sëñ Tuubaa ni raamal kitaabu kawnahu ma'i bila tafarruxin wa umri xat xabila mm-hmm. kon alxuraan a ko sàkku ci yàlla pour man sëñ Tuubaa ma ànd ak moom te dootuñu tàqali ko kon sëñ Tuubaa teg arxuraan foo xam dañ daan ñëw fekk arxuraan avant sëñ Tuubaa ñëw dañ ko daan taaxuraane mm-hmm. mm-hmm. daan ko labatee mm-hmm. daan ko wëreeloo da gis ko mokkal arxuraan lool waaye du xam valeur bi ginnaaw yàlla arxuraan bu nu ko fonkee ba fii mu nekk bàyyi Serigne Saliou Mbacké moo tax ngir xoolal fam ko fekk ak fi mu ko indi si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nee na lu ma manti am ci adduna alxuraanul karim moo ma ko gënal daana wax moom sëñ Tuubaa ni zavirtu bi kitaabi wa bil xadiisi saakiran man amara bi taqdiisi sëriñ Tuubaa nee na tuufu naa ci alxuraan ak ci xadiis moo tax boo bëggee gis lu wér ak xadiis bu wér damal ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa lu la wax ci xadiis wér na ndax xadiis yi ci boppam ñoo koy wax seen bopp sunil xadiisa wal furuu kal kitaab an alladina mtanau min al waaye bul te yam rafiu birfa il kitaab wal xadis ma ma difal kitaab wal furon maal axadisi sixaaqi zabron yow boo jàngee musalax am na ñu tuddee xadisu saxiix am na ñu tuddee daif am na ñu tuddee marduut mhm. yooyu yëpp ay waaye sëñ Tuubaa ne axadisi sixaaqi mhm. waaye zabron mooy borom raw man seexul xadiis mhm. kon tuufu naa ci alxuraan tuufu ci xadis waaye nag sante ko yàlla mi nga xam ni moo digle ni bu yàlla dafa leen nekk na ko sant man amara bi taq diis ndax wa amma bi ni amati rabbika fa xadis moo tax seexul xadim fonk ko lool daana wax ni zahara lii anna atisaaman bil kitaab wa bi xadisil mustapha huwa sawaab leer na man naññ man seexul xadim ni jàpp ci alquran ak jàpp ci xadiis mooy yoon wu jub bi de nee na kuy wër yoon wu jub rek te bëgg ko nee na alquran a ngi nii nee na xadis moo ngi nii daan ni kitaabu rabbiya gadan anisi min baadi kawnil Moustapha raisi nee na alxuraanu karim day ëllëg yowmal xiyaam mooy doon sama wéttal ginnaaw bi nga xam ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon sama kilifa man si Ahmadou Bamba xaadimu rasul mbàkke fa nga yemu ni déedéet karamati wa mafxari wa jaahi kitaabu rabbi wa rasulillahi Serigne Touba nee na sama karaama ku koy wër sama tedd nga ku sama ndam ku koy wër sama daraja ku koy wër ñu ne ko awa Mbàkke mu ne du lenn dul alquran ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ca kaw naan bustaani alquranul karim bustaani alquranul karim sama tool man ak Ahmadou Bamba mooy alquranul karim ak xadis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni nag man sëñ Tuubaa kenn du ma doonoo ci wurus ak xaalis Mbàkke lu lay dooloo mu ci ci liggéeyal alquran ak xadis ci lañ may doonoo man sëñ Tuubaa dégg wax kon sëñ Tuubaa kenn du ko doonu ci xaalis mhm. kenn du ko doonu ci wurus lañ koy doone mooy alxuraan ak xadiis mhm. moo tax bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu mhm. laa bi ma mawrusi kon alxuraan ak xadiis ci lañ may doonoo man Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nee na bi ma jàppee alxuraan nag man sëñ Tuubaa ci la sama lépp baax xool xasida googu ba mu cee way alxuraan inna ni xustu bil ilaahil muini min jamiil aza wa min kulli laini Serigne Touba nee na maa ngi musu ci yàlla mi nga xam mooy borom dimbal gi mboolem loo xamante ni lor la wala saytaane la rek maa ngi koy mucc sunu borom subhanahu wa taala mbàkke fa nga yemu ni déedéet saari fan himmati li rabbi taala raajiyan saqiyahu min ma in matini Serigne Touba nee na wëlbati naa sama yitte yëpp jëmale ko ci yàlla nag di yaakaar mu nandal ma ca ndoxam mu neex ma yàlla nandal na ko de mm. sëñ Touba bala koy xam nga jàng grammaire bi muy wax benn kaas la jëfandikoo waaye baneen ba nag daa jëfandikoo ay kaas benn bi mufrad la bi si des nag jamu la nee na benn baa ngi ca midaadi wa aqlaami saqaani bi kaasil xaw mi mën na waral xijaala seexul xaddi wax nga su benn kaasa ngoog waaye nag ba muy wax ne yàlla nandal na ma ca kaasam ya ca muxaddamaat dañu ko ku uusuka tasqiini bi haada busaaratin wali xutta faydan axjal al baxri wal fulka kon yàlla nandal na si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool ci kaasam yëpp waaye nag mbake fa nga yemu ni déedéet maasi kan bil kitaabi maska daririn bi yaddil xaaidil basiril muhini cay seexul xadim nee na day jàpp naa ci alxuraan nee na comme ni nga xam ne silmaxa noonu lay jàppee ci aw yatam buy dox ba mu dëgër sëñ Tuubaa nee nu ko graw sax noonu laa jàppee alxuraan man Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul daal wax ne wa huwa mafxari wa izzati wa jalisi bi axaadisi zil mazaya al makini mhm. Serigne Touba nee na alxuraan mooy sama ndam mhm. alxuraan mooy sama tedd nga alxuraan moom lay toogaale moo xaddisu rasulillahi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni ñooy borom mi may Serigne Touba nag yàlla defal ko ci alxuraan lu kenn amul mhm. doomam sëñ Modou Moustapha bindal na 40 kaamil Serigne Touba ci loxoom sëñ Fallou Mbacke bindal na 40 kaamil Serigne Touba ci loxoom kenn raxu ko waxuma la sax mais soxnay barzaq yi sax ku ci ne bind nga kaamil jox ko sëñ Touba. way julu sëñ Mourtala. bindal na sëñ Touba juróomi kaamil te sëñ Abdou Rahman Lo moo ko jàngal ba mokkal. mu bind juróom te la si gën a yéeme téere yi neneen bi jàng ba mokkal te mos a gisante ki koy jàngal dañuy doxale sàkkal ci diggante bi. sëñ daam di wax soxna siy dégg ba mokkal alxuraan bi bind juróomi kaamil ci loxoom. moo tax waykat bi dafa ummu naa tuuti. bi kaddi ramadaana fii yawmil jum'ati mawtuha sabaana xad katabat bi yaddiha masaaxifa tuaddu xamsatan turaka arifa juróomi kaamil jox ko si Ahmadou Bamba xaadimu rasul soxna may Mbàkke xoolal li mu bindal sëñ Tuubaa ci ay kaamil waaye nag sëñ Tuubaa yàlla defal ko ci alxuraan loo xam ne mu mën ci lu kenn mënul mm-hmm. ndax fi mu ko teg xoolal sëñ Moodu Faal alxuraan sëñ Tuubaa ko sol arxuraan ci ñetti fan arxuraan boo ko moomul xanaa doo ko solee te li ci gën a yéeme Baye Zeyd arxuraan Màkka la wàcc ak Madina diiru 23 ans mm. mais Màkka amul daaree kaamil Madina amul daaree kaamil fenn képp la am daaree kaamil mooy fii ci penk bi te bàyyi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom ko moom sëñ Abdoul Ahad def ko fa moo tax ñuy wax ni yéene néeg la borooma cay fanaan mm, mm. moo am yéene defal kër alxuraan ba mu génnee jamono ñu tàbbal ko ca biir daare kaami Cheikh Abdoulaye kon yéene néeg la borom a cay fanaan sëñ Modou Fall alxuraan sëñ bi sol ko alxuraan ñetti fan mm-hmm. dafa ñëw ànd ak ñett ku ci nekk wax sa soxla dem mm-hmm. sëñ Tuubaa ko ndongal loo bëgg mu ne ko day mbàkke maa bëgg nga def ci man alxuraan sëñ Tuubaa ko waxal li sa moroom yi wax dem mu ne ko mbàkke awma jën yi te judul alxuraan mm-hmm. sëriñ Tuubaa ko waxal li nga bëgg mu ne ko mbakki askan yu ma bokk ku fa mokkulu alxuraan doo am sax wéttal kenn du la teg fenn mbàkke mu bëgg nga def ci man alxuraan sëñ Tuubaa ni ko demal ban séntu ba gis ko boo di kee ma def ci yow alxuraan mm-hmm. bi mu ko gisee muy bàgg ci biir mbooloo mi sëñ Tuubaa woo ko ne ko yaa fi ñëwoon di sàkku ci alxuraan mun ko waaw mbàkke sëñ Tuubaa ni ko randu si nii ñu def ci yow alxuraan mm-hmm. mu randu si sëñ Tuubaa jël loxo mu tedd ba teg ko ci bopp bi ne ko yaa Moodu Faal iqra mm-hmm. mu tàmbali alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fii ba alaa yajidu maa yunfiquun sóoratu tawba di ñaar fukki isib sëñ tubaa ni ko kafaa demal ba ëllëg deuxième jour mu ñëw sëñ tubaa ko yaa muuru mm-hmm. mm-hmm. faal iqra mu tàmbale innama sabilu ba wallaahu yaalamu maa yasnaun di sóoratul ankabut di ñaar fukki isib sëñ demal ba ëllëg kafa mu ñëw sëñ tubaa mu tàmbale wala tujaadilu ahlal kitaab ba minal jinnati wan naas sëñ ko bis ni ko tey aataytukal qur'aana tafsiran wa tajwidan wa tilawatan bis ni ko tey yow sañ Modou Fall jox naa la alxuraan nga di ko jàng te doo ko xool jox naa la alxuraan nga di ko firi te doo ko xool jox naa la alxuraan nga di ko tajwid te doo ko xool sëñ Modou Moustapha Mbacke nee na maa laaj sañ moodu Fall ni ko bi sama baay jëlee loxoom bi teg ko ci sa ndaal bopp bi ana noo def ak alxuraan sëñ Basiiru Mbacke mu ne ko Basiiru mu ne ko Mbacke mu ne ko sa baay bi mu nee teg loxoom bi ci sama ndaal bopp bi daa mel ni xarafi alxuraan yëpp dañ koo def ci genn ndab ma jàkkaarloo daa ma ne xarafi alxuraan yëpp dañ koo def ci genn ndab ma jàkkaarloog moom ma sëriñ Modou Fall moo tax ñu ko daan wooyee Serigne Modou Fall alxuraan mm-hmm. ndax ñetti fan yi nga xam ne moom la ko sëñ Touba sol ci weeru ko moo tax sëñ Touba jagle kooku moom rek moo ko am ay bind ay doomam xam nañu moom lañ bëgg mm-hmm. moom rek la bëgg am na kaamil bu ñuy nettali xista bi maa ngi ko jëlee ci sëriñ Maam Mor Mbàkke moom sëriñ Fàllu mm-hmm. mu nettali ko ma dégg mu ni sëñ Touba sëñ Fàllu bindal na ko 40 kaamil ci loxoom bi mu àggte ci vingt-huitième kaamil bi mhm. bi mu ko bindee jox sëñ tubaa sëñ tubaa boo bindee kaamil jox ko da koy teg ci noppi di ko déglu mhm. ndax kooku amul kumpa de dara ko xam nga lu tax mhm. allamtanil xayba xatta sirtu muntabiha antal alimul lazi allamta yàllaa ko amul kumpa boo ko jox da koy teg di ko déglu benn naar ba bindoon kaamil jox sëñ tubaa jël kaamil bi teg ko ci nopp bi kaamil ni ko mbàkke damaa manqué Mm-hmm. ndax fa xan kazzabtum ja sóoratul baqara dafa manqué ak sadda sëriñ tubaa ni nañ ko xool delloo ko ci bi ñu ibbee kaami bi xool fa fariqan kazzabtum ndake manqué nag sadda ñu jël sadda gi delloo ko ci sëñ Tuubaa jël kaami teg ko ci nopp mu ko mbàkke maa ngi door a mat sëñ Fallou bind ba àggal jox sëñ Touba sëñ Touba kaamil bi teg ko ci nopp bi di ko déglu. Mm-hmm. daane ko Mouhamadul Fadal kaamil bi mat na sëkk. daane ko am nga fi yóbbante de mu ne ko fu mu bàyyi ko mu ne ko yóbbante bi sama borom moo ma yóbbante ci yow nee na day kaamil bii nga ma bindal daf koo neex ndax doo ko bindal kaamil bu mel nii. Mm. sëriñ Touba sëñ Fall ni sëñ Touba. neel yàlla moom maywul dara lu mu yor da koy jaay nekk su bëggee ma bindal ko kaamil damay fay. yàlla maywul dara. lu da koy jaay. sëñ Touba sëñ Fall sa borom nee na lu mu lay fay. sëñ Fall ni sëñ Touba neel yàlla mu xaar moo bind ba àggal mu xool ba xam jaral na ko. Mm-hmm. mu door a fay. sëñ Fall bind tëju bind kaamil bi. bi mu ko bindee ba mu àgg mu dikk jox ko sëñ Touba sëñ Touba teg ko ci noppi déglu ko ni ko Mouhamadul Fadal kaamil bi mat na sëkk. Mhm. mu ne ko yow nag kaamil bi ma la joxoon addiya sama diggante yow ndax doo sama baay sama sëriñ nga ndax dama jaayoon sama njuréel jënde ko ak taalibe yaa ayyuha sayxu nafisil murtaja yaa fatixan ma kaana xablu murtaja biatu bunu watiya bil irada lakum li kay axza bi xarxil aada mhm. kon yow sama sëriñ nga waaye neen yàlla moom dama ko koy jaay waaye may mu sëñ Tuubaa ni ko sa borom nee na d'accord na lu mu lay fay kaamil bi neex na ko mu ni ko neel yàlla yow sëñ Tuubaa ku la bëgg tamit dëgg ku la sopp tamit dëgg ku la yaakaar tamit dëgg bu faatoo def direct biir àjj na Tuubaa ni ko Muhammadul Faadal sa borom ne li nga ñaan daa diis sëñ Fallou ni ko diisul ci yàlla mi koy maye diisul ci Ahmadul Xadim mi koy ñaan mm-hmm. sëñ Tuubaa tekk ba ci mu ni ko Muhammadul Faadal sa borom d'accord na mm-hmm. nee na ku ma bëgg tamit dëgg ku ma sopp tamit dëgg ku ma yaakaar tamit dëgg tàbbi aj te ñett yëpp sëñ Tuubaa bind na leen wa kullu man xaddama nii awzaara mm-hmm. fa najji ki wax fir lahu awzaara mm-hmm. wa kullu man a nii aw maala mm-hmm. ilayya farzuqu hudan aw maala waaye nag beneen ba ca bakkaan xàq na gën a neex xoolu bu jumlati ladina aflaxu liya tawajjahat wa rabbil musixu bépp xool bu nar a daam àjjana saa bu nu ko laalee rek si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool lañ cay fekk kon njabootam gépp bindal nañ ko alxuraan hmm. moo tax mu ne alxuraan bu doon li ñuy saraxe yàlla sarax na ma li muy jaay yàlla jaay na ma ko bu doon lu muy addiyal addiyal na ma ko kon ñett lan moo des hmm. bu dee lu muy addiyal addiyal na ma ko bu dee lu muy saraxa sarax na ma ko bu dee lu muy jaay jaay na ma ko hmm. mulituhu hadiyatan wa sadaxa wa samanan wa li yuddi mu nafaxa daani awrasani awrasani laahu kitaaba rabbi fadlan wa laa ilaha su suma alxuraan moo wax ne wa awrasnal kitaaba lazina stafayna min ibadina mhm. alxuraan ñoo koy doonuloo ñi nga xam ne sunu jaam ñoo leen koy doonuloo mhm. sëñ Tuubaa nag yàlla moo ma doonuloo alxuraanul karim mhm. waaye loolu nag ngëneel la loo xam ni mu ngi bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom mbàkke fa nga yem mu ni déedéet laa ci wa jumlatil kutubi xisbillaahi yàlla doonuloo na ma alxuraan waaye mbooleem téere yëpp rek yàlla doonuloo na ko xoolal xasida gi nga tijjee sànq di nooru daari ni xoolal li sëñ Tuubaa di wax alxuraan xoolal ni mu ko tëggee kitaabu rabbiya innaka al kitaabu wa xaala fii ka zaalika al kitaabu yàlla bii di alxuraan mm-hmm. mooy ab téere de nga xamante ni neex na ca biir sax jaaltu ko dahra xalilan yaa xabib mm-hmm. yow def naa la bis ni que tey diirub jamono yow mi nga xam ne yaay sama soppe hmm. yaa man bi ko xaniitu an kulli tabib hmm. yow mi nga xam ni alxuraan doy nga ma sëkk docteur hmm. wala beneen docteur di ma tiim baa xam nga di sëñ Tuubaa dund na 75 ans docteur mosu koo tiim déedéet nee na su ma tawatee baa dara dar ma alxuraan may faj baa rasulullah ki ndax sifaa u jismi wa sifaa u xalbi muhammadun salla alayhi rabbi sama saafaras xol sama saafaras yaram mooy yenent bi salallaahu aleyhi wa sallam kon sëñ Tuubaa nee na alxuraan yàlla moo ma ko doonuloo ak mboolem téere yi wàccee kaw asamaan yëpp sunu borom doon loon na ma ko man si Ahmadou Bamba xaadimu rasul mbàkke fa nga yemu ni déedéet kan zil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jam a fiddatin wala jam a dahab sëriñ Tuubaa nee na sama trésor kon trésoru sëñ Tuubaa mooy lan bu la ko laajee du xaalis de mm. gaa yi nag seen trésor yëpp mooy xaalis mm. dañ koy denc banque ba mu di ko xool sëñ Tuubaa ne sama trésor du xaalis du wurus du dara mbàkke lal la mu ne alxuraan ak xadis sëñ Tuubaa baax mhm. xoolal nit ñi jàpp ak moom bàyyi sëñ Saliou Mbàkke li mu jàpp sama trésor koo xam ne nag maa ngi koy wax ba tàyyi képp kuy dund mhm. ba génne jamono si yére bi nga sol di am poos mhm. seexul xadima la gën waa Baye Zeyid amul lu gën a yéeme soixante-quinze ans nga dund ko te musoo sol yére bu am poos seexul xadim ndax nee su ma solee yére bu am poos mhm. danaa ca def dara te la nga ca def bis boo demee ba ca xel nekk ci nga war koo génne mhm. sa xel génn yàlla mhm. te sëñ Tuba nee na sama xel du génn yàlla ma ci Ahmadu Bamba Xaadim Rasul kon téréseru sëñ Tuba du dajalee xaalis waaye kanzil kitaab la wal xadisi wal adab laa jam afidatin wala jam uzab sëñ Tuba ni téere bi yàlla bii rek damaa nekkal ma nekkal ko rek bàyyi see su ma la nekkalee wala ma nekkal waa maj ma ko nóoree ni xanaa nag waa maj ma ko nóoree ni su ma xewlee baa ma def dara war nañ maa taxaw ndax li ma leen nekkal sëñ Tuubaa damaa nekkal arxuraan arxuraan nekkal ma kitaabu rabbi mm. kaana lii wa kuntu mm-hmm. lahu walillaahi bihi sakkantu da téréb bi nekkal na ma mm. waaye nekkal naa ko man si Ahmadou Bamba xaadimu rasul da daan bind ay kaamil moom sëñ Tuubaa mm. xoolal xasidaam gu neex gi nga xam ni nee na bi ma jàppee alxuraan ci la sama njàqare yëpp dañ amatuma benn njàqare bihi zaala xammi xiina amsaktuhu hudan sa uhdi bihi nafsi wa uhdi bihi sahba nee na day bi ma jàppee alxuraan si la sama njàqare yëpp dañ alxuraan jooju ci laa gindee sama bopp waaye képp ku ma yaakaar ci laa la gindee kon ku yaakaar sëñ Tuubaa war ngay jàng alxuraan di ko toppatoo di ko teg ca kaw mm-hmm. li ñuy liggéey la sëñ Tuubaa la seen njëkk mooy alxuraanu karim mm-hmm. xanaa ni waxee waxoon na ni man sëñ Touba képp ku ma yaakaar maa ngi lay digal na ngay mm-hmm. jàng alxuraan foo mënti tool mm-hmm. foo mënti toll rek na ngay jàng alxuraanul karim waaye xool xasidaam gi nga xam ni bi Serigne Abdoulaye Mbacke borom dër bi ganee jamono ci Thiéyène Jolof 1907 wala 1908. Mm-hmm. ci la ko sëñ Touba bind ni sama boroom nee na. moo ma ko teralee ngir darajay gan gi gane jamono nee na xasida gii na ko bind ñoo képp ku ko xool sa yaram araamal na sawara ñu jël xasida gi bind ko ba mu jekk takk ko ci buntu kër gi ngir taalib bi yëpp mën a jàkkaarloog moom boobu nag bi si Ablaye Mbàkke borom dër bi gane jamono la ko taalif mooy minal xaqi hmm. jaa al xaqu lil xaqi fi sax bi hmm. bi xaqin mu biinin laa yu aanihi min sax bi xoolal xasida gi ni mu ko neexee boo ko doon firi nag hmm. mbindum sëñ Tuubaa li moo tax mu doy waar boo koy firi boo tàmbalee ci xarfu jara bi rek doo dégg maanaam bi boo tàmbalee minal xaqi déedéet ndax alxuraan wax jaa al jaa al wa zaaxal baatil mm. innal baatila kaana zawqa mm-hmm. kon boo koy fiir doo dàmbalee min a xaq dee da nga naan jaa al xaqu dëgg ñëw na mm-hmm. fu mu jóge min al xaq ci yàlla mii dëgg mm-hmm. fu mu jëm lil xaq ci Moustapha mii dëgg fii sax bi nag ci saxaabaam lan la indi waaw gisoo xoolal jinaas bi jinaasu taama ngoog uh-huh. ñoo bokk luñ koy bindee ñoo bokk masque ñoo tollee xarab waaye benn bokk sa soma korom yàlla ak yàlla jinaasu taam la moo tax boo demee kap am na bayit boo xam ci mu ngi ci jaalibatu wa bi kitaabati ya rabbi rabbi gisoo mm-hmm. ku la mu taali li li wajji rabbi mm-hmm. wa bi kitaabati ya xas de giri jaalibatu rabbi yow sama boroom rabbi yaral mm-hmm. ku la mu taali in ku ko yër li wajji rabbi ngir sa jëmm ji xoolal rabbi yi ñoo tolloo xarab ñoo bokk maska ñoo bokk nuñ leen di bindee waaye comme ndakaar ak Thiès ci firi kon jaa alxaqu dëgg ñëw na fu mu jógee minal xàq ci yàlla miy dëgg la jëm leel xàq ci Moustapha dëgg fii sax bi nag saxaabaa mi lu mu indi bi xaqin mu biinin dëgg ko biir goo xam ne laa yu aani ki du ko gaar mukk min saabin ci lépp loo xamante ni ay diis la bàccoona baa mi du daal du gaar alxuraan mm-hmm. mbàkke ki ngay wax mooy kan mu ne kitaabun bihi narju min allahi rahmatan mm-hmm. wa nanju bihi dunya wa uxra min alkar bi mm-hmm. téere ngi nii boo xam ni ci lañu yaakaare yërmande yàlla waaye téere ngi nii boo xam ne ci la ñuy muccee ci lépp loo xam ni nax-naxi àdduna la ak ju nee na alquraanul karim ci boppam moo ñu koy fegal mbàkke ngay mu ni déedéet rajaw naa minal mawla bihi xayra matlabin wa fuz naa bihi fii kulli dafin wa fii jalbi nee na rajaw naa ñu ngi yaakaar minal mawla bàyyi koo ci yàlla la matlabin gën gu sàkku nag waaye wa fuz naa dañoo tuufu ci alquraanul karim waaye nag fii kulli daf in fii jal bi kon alxuraan la ñuy jale moom la ñuy dàq euh, jañe mm. waaye moom tamit lañuy ñuy xëccee mm. kon sëñ Tuubaa lu muy def rek ci alxuraanu karim hmm. la koy def moom Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul moom lañ mës gis mu ni koo xam ne day jël alxuraan bay zeyit hmm. di ko teg ci kaw yi lal di tëdd ci suuf sëñ Tuuba hmm. amul kenn ku la mën a wax ci àdduna lal bi sama maam daan tëdd sëñ Tuuba ko doon amul sëñ Tuuba daawul tëdd ci lal ku mu yar sax daawul tëdd ci lal xoola sëñ Masamba Diop Sam téeméeri rakkaa lay naafila yaakaar sëñ Tuuba sëñ Daaru Xasan téeméeri rakkaa lay naafila yaakaar sëñ Tuuba maam Mor Jaara yi mag téeméeri rakka lay naafila yaakaar sëñ Tuba xoola sëñ Daam Abdourahman Lo moo far da koo def ñaari rakka far kaamil alxuraan bi amul ku sëñ Tuba daan yar ngay nelaw moom Cheikh Ahmadou Bamba xaadi sëñ Mansour Diaw da daan jël ak bum takk ko ci baat bi takk ko ci buntu néeg bi fanaane njàpp toog di jàmm yàlla ba asamaan set bi ndax nee na bëgguma ma sëñ Tuubaa woowee rus naa defar samay lal ba mu jekk ma di ci tëdd bàyyi Serigne Saliou soxla ma ma naan bërët ci biir lal bi déedéet mm. damay takk fii sama baat ngir su ma demee ba nar a gam-gam rek mm. nee na buum gi dina ma xëj ma man ma xam ne kon maa ngi am fu ma nekk mm-hmm. kon sëñ Tuubaa amul koo xamante ni sëñ Tuubaa yar na la ngay nelaw moo tax moom la daan jël teg ko ci kaw yi lal sëñ Tuubaa toog ci suuf mm-hmm. di ko way ma ee eh, yow téere bu tedd bi anta xabibi yaay sama soppe wa xalili yaay sama xarit xoole ñaari garaata ngoog xalil ak xabib boo ko bëggee xam damal ci ibrahima ak moustapha ibrahima xalil la moustapha xabib la mm-hmm. te xabib dafa ëpp doole xalil mm-hmm. moo tax anta xabib bi yaay sama soppe wa xalili yaay sama xarit wa kunta xablu tabib bi avant sax loolu yaa doonoon sama docteur bi may faj man seexul xadim mbàkke fa nga mu ni déedéet anta izzi yaay sama tedd ga wa mafxari yaay sama ndam anta jaahi yaay sama daraja yaa anta kanzi yaay sama trésor yaa faqara kulli labibi yow mi nga xamante ni yaay tiitaru képp ku am xel li nga war a tiitaroo mooy alquranul karim kitaabun karimun min karimin mukarramin li abdin karimin na war a sarx war xar baa baneen jinaa sanko xoolal karim yi bokkut benn bokk ci morom bu muy wax. karim bii mooy alxuraanul karim kitaabun karimun téere bu tedd ngi. Mm-hmm. fa mu bàyyi ko min karimin ci ku tedd. Mm-hmm. waaye nag jëm ci jaam tedd. Mm-hmm. di rasulilah sallallahu alayhi alxuraan jooju nag moo leeral penk moo loola sow. kitaabun majidun min majidin mu majjadin li abdin majidin xad alal ujma wal urba kitaabun. azizun min azizin muazzazin li abdin azizin duunaku man xawal xurba mhm. nga xam ne lépp alquranu karim teddaangaam la si ahmadou bamba xaadim rasul di wax fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartiiri quranin azimin yaxil karba nee na day texe ñel na jaam boo xam ni mhm. day jaamu yàlla boroomam waaye di jàng alquranul karim mi nga xam ni mooy fekk lépp loo xam xamante ne ay njàqare la mhm. qiraatuha kanzi jàng gi ma koy jàng mooy sama trésor wajaahi mooy sama ndam waaye izzati mooy sama tedd nga uniltu biha kaw nii la dal laay za sidix yi mm. jàng ki ma koy jàng ci dama yàlla boole ma bokk ca si dee xuune ya man si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul xam naa la ñuy taxaw foofu dellu la kàddu gi ba mu deel siwaat ak jàmm rek di tuub bu baax di la jëllawaat kàddu gi jërëjëf sëñ Xaadim macha allah kàddu yi leer na loolu wax dëgg yàlla xam-xam bi macha allah rafet na loolu wax dëgg yàlla bég nañ loolu comme ni nga ko waxee rek Sëriñ tubaak ak alxuraan moom dafa doon lu yaatoo yaatoo yaatu mel na buñ ci doon wax fii ba uh, suba moom duñ fi jug ndax boo xoolee daanaka xasidaam yi ni mu ni mu ni mu ni mu feesee del ak bayit alxuraan yi bañ naka li ci gën a yéeme moom lañ gis ci waykat boo xam ni mooy jël ay alxuraan di ci tëgg xasida wala mu wala mu jël turu suñu borom di ci tëgg xasida wallaahi mosul am ci waykat waaw te nag li mu dàq waye waykat yi mooy benn bayitam da ciy dëxëñ neuf turu yàlla loolu yow jàng nga nga jaar nga ci azhar gëstu nga téere yu bari mm-hmm. mais amul ku ci mës def na ko du sëñ Tuubaa neuf yàlla ci benn bayit benn bayit wallaahi allaahu mm-hmm. rabbun mm-hmm. jalilun maalikun axadun barrun latifun karimun samada wayu moo tax mu ni lam yazal musul dañ mm-hmm. moom yàlla mm-hmm. sama daa di ku ñu jublu ndax sama du xadd aw saltali fi ma maarumtu min ka xablahu bi faye daal mm-hmm. neuf tur yàlla ci benn béy waayam doo ngay gis mu jël cinquante trois qualité takkal ko Moustapha ci benn bunt cinquante trois qualité ci benn bunt demal ci muxaddamaat nahaniya xubbullaahi ni'mal muhayminu anil may ni am maxtiire wal xaqu aqmanu Mm-hmm. nabastu laxaa abdan li mawlaayi waxdahu xadiman mm-hmm. li man an darkihi kanata alsunu mm-hmm. nasaftu bina almayni bilxaqi maadihan li fardin ala xuluqin wa na anhu daydanu nawaytu dawaama dicri wa sukri xaadiman li xayril wara ni amal xasinun muzayanu nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun xabibun misluhu laysa yulanu najiyun xaribun zakirun wa wa shaakirun jawaadun karimun bil makarimi yoxsinu naqiyun taqiyun saalixun wa huwa muslixun mhm. basirun liman lillaaki bil xaqi yusinu nabihun mhm. adibun zo xayaain muhadabun mhm. nazirun liman bil kufri wa sirki yuxlanu kookoy kan nasixun bila xisin alimun muallamun saqiyun bila mannin kalaaman ñu lay nu 53 qualité ci benn bunt mu jox ko rasulillah sallallahu alayhi wa sallam loolooy ak mën a woy te li muy woyee amul ko mu sa woyee aay lay jël di ko way sëñ hmm. mooy wa hmm. Hmm. kaana xaqan alayna nasru muminin aay te nag toujours na aaya ba tàmbalee noonu lay tàmbalee fee waaw la fii waaw doo dégg mu ne war a xadd karam naa bani aadam waaw la tàmbalee wajjatu wajhi liman takrimahu baana fii sahri mawlidi man fil baxri rabbana alxuraan doo dégg moom si Ahmadou Bamba xaadim rasul mhm. ay lay jël di ko way mhm. ay sa nuqari uko falaa tansa mhm. ak a baax ci kii sax ci xale bi sa nuqari uko falaa tansa moom lay mës a gis ku jël aaya alxuraan di ko way di jël saari alxuraan di ko way moom si Ahmadou Bamba doo dégg xasida gi mu tëkkee laqad jaakum rasulun min anfusikum mooy li maaxin basirin nga xamante ne aaya alxuraan boobu la ko tënkee moom si Ahmadou Bamba xaadim rasul moo tax yàlla defal ko ci way loo xam ne kenn mësu koo am ndax lu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wayul bindul mun ñoo teg benn téere wax ne moo ko bind mhm. la mu waroon a bind te bind ko mhm. moom la sëñ Tuubaa bind moo tax faw kéemtaan feeñ ci mbind mhm. kon loolu day wane dond gi ko suñu borom doon loo alxuraan rek doon gi ndax boo xoolee mi ngi ci xikmat Cheikhul Xadim am foofu day wax ni euh, fassara lillah subhanahu wa taala bi alif laam mim muy alif gi mu ni euh, awrastukal kitaab wallaahi laam gi mu ni laqantukal gi mu ni malaktukal kitaab mooy doon loon naa alxuraan moom loon naa la alxuraan euh, sanaa la alxuraan te te te boo xoolee ay alxuraan bu ñu koy tafsir mhm. soo boo demee ci kutubu tafasir yi mhm. bu ñëwee ci euh, kii yooyu euh, xaraf yooyu dañ naan allahu alam waaw allahu alam bi muraadihi kese lañ lay wax waaye bàyyi sëñ Sall doo ngay dégg te nag yamul ci ah. alif laam mim de mhm. même taasi miim ay xaamim ayn si xaaf yëpp boo dikkee ci rek moo si Ahmadou Bamba yëpp sëñ Tuubaa na ndax yàlla ko defal baa xam nga ni wax na wax ju doy waar ju ma frappé nee na arxuraan ba ma koy mokkal wàccagul ci Moustapha wax ju yéemee ngi noonu fu sëñ Tuubaa nekkoon ak fu arxuraan nekkoon ba sëñ Tuubaa mokkal ko te wàccul ci Moustapha daanaa ko jàng bu yàgg moo tax mu ni su ma fi jiitu woon arxuraan di ngeen ca dégg Abdul Xadim lu bari waaw law jiitu xabla nuzulil kitaab gisoo du ma fi ñëwoon gën a alxuraan mhm. da ngeen dégg haza abdul xadim kasiran lu bari ci alxuraan ngay dégg mhm. sëñ Tuubaa fi mu jaar alxuraan da koy tudd lu bari ni ngay déggee Moussa di ko déggee Isa noonu ngay déggee abdullahi wa mhm. xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni mokkal naa ko te wàccul ci Moustapha daanaa ko jàng xabistu ma anzalahul jalil xabla nuzulihi ma a tartili te lim ñu dimbale ñu wax kat yi mooy sëñ Tuubaa lépp lu wax rek bind wallaahi kon yàlla moo ko doon doonloo téere bi. moo ko doonloo tey bokk na li gën a yéeme foofu mooy mooy alxuraan mm-hmm. li waral ni sëriñ bi day wax ni maam bu fekkoon moom moo fi jiitu alxuraan suñu borom ci tudd turam. waaw waaye danaan toog ak mag mm-hmm. di jël ay aaya alxuraan di ci junj boppam. waaw boo demee ci xikma ba tey. mi ngi koy wax ni xanaa gisoo leen aaya alxuraan boobu ne alam tara anna allaha tajril a bi neexmat yi. wallaahi daal ni neexmat yi xam ngeen lu ci suñu borom jublu. mag ñi ni ko déedéet mbàkki wala mag ñi comme ni ñu daan waxee moom ne boo ñu ci mënee dimbali mu ne neexmat yi googu man la la ilaha illallah waaye xéewal xéewal xéewal googu di daw ci ndox mi la barke sëñ Tuubaa beneen bi mooy euh, li haza gis nga li haza boobu la ci daan jub mooy ñu ñu ngi sant suñu borom mi nga xam te ne moo ñu jubal ci kii moo ñu jubal ci Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Khadim waaw ndax wax na ko ci karam naa mhm. wal tahdi bii Mhm. siiban wa fityaana mhm. na ngay gindee ci man di jubalee ci man ndaw ñi ak mag ñi bi jaaw ñi mhm. dafa kon loolooy waral ni kon boo gisee ñu naan sëriñ bi moo moom alxuraan xam nga des fois da gis ci internet bi ñoo xam ne dañ naan bu ñee sëriñ moo ñoo moom moom alxuraan nag ñu weddi ko bëgg koo layal ni alxuraan yàlla moo ko moom yàllaa ko wàcc waaye suñ borom lépp lu mu wàcc ci euh, kaw suuf rek doomu aadama tax moo tax mu wàcce ko wallaahi mooy mooy mooy saqar naa googu mu ci alxuraan mooy lépp lu mu wàcce ci kaw suuf da koo tàggatal doomu aadama dëgg la de léegi xadri azamat zaati gi sëriñ bi di ñaan tamit ci ci xaside yi loolu tamit dafa yéeme loolu nga xam ni dëgg dëgg jëmmi suñu borom ñam alxuraan mënoo koo euh, teqaleeg suñu borom alxuraan da nga naan mooy yàlla wallaahi waaw ah, ndax suñ ci melokaani suñu borom yi la bokk wallaahi kon sëriñ bi boo gisee taalibe di wax naan sëriñ bi moo moom alxuraan mhm. foofu lañ ko teg waaw mooy may may gi ko suñu boroom may alxuraan mhm. comme sànq am na bayit boo ko waxee bu doon lu muy jaay la jaay na ma jaay na ma ko bu doon lu muy addiyal uh-huh. addiyal na ma ko bu doon lu muy sarax sarax na ma ko mi ngi noonu kon do dèjà kon wax yooyu kon teguñu ko ci ak réer lu wér lañ ko wax kon léegi résultat yi nga xam ne day wane ni Serigne Touba moom moom alxuraan suñu xaarim ci laa bëgg nga ñëw ci mooy uh-huh. mooy nii mu def alxuraan diir bi mu nekkee njaarim uh-huh. mooy ñaar fukki kaamil ni juróom-ñett yi loolu tamit lu mat a bàyyi xel la te ba léegi mi ngi wëy yaakaar waaw mu ngi wéy ba léegi ndax nee na leen feek yéen a ngi bàyyi kaamil mm-hmm. bi di ngeen ko jàng yàlla mm-hmm. bu kenn faatu woon bala ñu koo denc danañ lijjanti ku ko remplacer ba pare door koo denc ci ci ñi mag ñi jàng ñaar ñaar fukk kaamil yi mm-hmm. bala bu ci ko denc maanaam dinañ lijjanti a ba pare pour kaamil yi ñuy jàng benn bañ cee manqué ci njaareem ah. ba pare door koo denc moom ngir sëñ Tuubaa nee na leen bu ngeen bàyyee jàng kaamil dëndëm bi jagle yi tax nga ni moo ko moom da cee bari sëñ Tuubaa xam nga bokk na ci yàlla moo ma may alxuraan yàlla nag moo ko moom kum ko may xanaa nga war koo moom te sëñ Tuubaa ni waxee ne maamu arxuraan dafa fees ci jamono yëpp mm-hmm. yëpp lii génnee ci dëkkam bi ci arxuraan amul fenn doomam yi li ñuy génnee ci ay nit ci arxuraan xoolu sëñ Saaliw Mbàkke li muy defar ci daara arxuraan mm-hmm. mm-hmm. fukki junni ndongo ak ñaar ci daara yi sëriñ Saaliw moo leen di jox lekk moo leen di jox naan moo leen di jox koddaay jàngal leen ba nu mokkal te moo leen di faj moo leen di def lépp Serigne Saliou mhm. fukki junni ndongo ak ñaar waykat ba ne mhm. zurukum in siita mhm. fii ndookaa wa fii njuralin wa fii amaakinin uxraa mista xel ni mu def alxuraan moo tax yàlla may ko ko ndax amul ku ko mos a def ci jamono ñee naa la sànq bi dañ ko daan taaxuraane daan ko labatee daan ko tëggee daan ko sëñ Tuubaa jël bàyyi ay lalam li gën a seer di jël alxuraan di ko ca teg di ko tag loo ko mos a jox mun la tegal foofu la muy téye mooy alxuraanul karim foo ko fekk loxo baa ngi ci suuf di bind xasida di way yenante bi waaye làmmañ baa ngay jàng alxuraan mm. yat di taxuttu wala waaye wa lisaani yatlu mm. sama làmmañ bi mu ngi jàng alxuraan waaye loxo baa ngi ci suuf di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dëkkam bee nga xam ne amul mag ñi ñi ko daan topp ñëpp ku ci nekk daan ko bindal kaami alxuraan di ko jox Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo tax téere sa wax nañu ba bi muy génn jamono mm-hmm. li mu ngeg naa yow mooy fanweeri kaamil ak ñett 33 kaamil li ngeg laay sëñ Tuubaa 33 kaamil wax nañu mag ñi bind nañ ko mhm. sëñ mu Amadou Lamine Gueye baara Fatim Mbodj lañu wax ne moo ko bind ngege naa ko ma Ahmadou Bamba Xaadim Rasul xoolal njabootam ngi ni ñu def ci alxuraan xool sëñ daa Abdourahman Lo sëñ Moussa Ka nee na ku juddu ci Mbàkke rek mhm. moo la xamal boroomam mhm. moo jàngal ñëpp alxuraan sëñ Tuubaa nag teg alxuraan foo xam ne ku dul moom tegu ko fa moo tax concours alxuraan bi am ñu ne international la ki ko jël coupe du monde bi ki ko jël kan la jigéen. fan la dëkk Sénégal. Mhm. fan la dëkk ci Sénégal ñu ni tuuba amul affiche bu dàq affiche boobu. Mhm. loolu rek war nañu xam ne kon bàyyi sëñ Salim Mbacke moom mu Alxuraan. ndax yàlla moo ko rafetal te boo xoolee katabatul wax yi. Mhm. mooy ñi doon bind wax yi. waaw xam nga def naa Abdoulaye ibn Mas'ud ci la bokk. waaw Ali ibn Talib. waaw Zayd ibn Sabit. waaw nga xam ne Zayd ibn Sabit sax moo yaakaar naa moo mujjee def ard. waaw jàng alxuraan ji ba mu jeex ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. boo xoolee xoolee doomi sëriñ bi mhm. mooy waa barzaq yeeg ñëpp ñoom ñëpp kenn ku ne bind nga kaamil wax nga ko sànq beneen bi mooy sëñ Modou Diop Lamine Dagana moo ko nettali ci Irwaaw Nadim mooy sëriñ bi bi weeru koor bi di bëgg a tëru ñetti a ci des wallaahi mu nii ne damaa bëgg ngeen bindal ma kaamil boo xam ne bu ñu nee weer waa ngi nii ngeen ma kaamil baa ngi nii nga xam ne ñett ñi ko ñi mu ko ñi ko boolee pour ñu bind ko kenn ku ne fa nga yem ak sa morom du ngeen rawante. barke sëñ Tuba te du te du ngeen gisante. te billaahi amul lu gën a day war lool. loolu lu ko gën a yéeme. bi morom. te ku ci fa nga yem sa morom bu dikkee foofu lay déparé continuer. wallaahi kon kooku kooku kooku day wanal ni kon alxuraan. moom la ko suñu borom moom la ko suñu borom jox. beneen bi mooy xam nga loolu baamuwaat nañ ko ci suñ jamono yi mujj mooy uh-huh. isu sarxiya seen kii bi ñu doon def. Uh-huh. Dakar. Uh-huh. yaakaar naa xale yoo xam ne ñu dajal xale yu bare bare bari ñu bind bi kaamin ci benn fan allahu loolu ba àdduna sosoo ba léegi mosuñu koo gis déedéet déedéet waaw kaamin yi ñaar fukk kaamin ak juróom ñu koy jàng diiru njaarim ba léegi hmm. ba ba ni sëriñ ba ba suñu jamono jii tey wallaahi mosuñu koo gis ci àdduna fi déedéet déedéet kon mel na ni alxuraan tey sëriñ bi daan na wax ni alxuraan dama koo fekkoon mu mel ni aw mool aw aw fas woo xamante ni mag ñi dañ koo jàpp ba yeew ko waaye joxuñu ko mu lekk joxuñu ko naan ba mu ràgg bi ma ñëwee nag ma fekk fas wi di ko di ko jox mi lekk di ko jox mi naan ba mu ba mu mat ba ba yafalu ba mën a ba yéeg boppam loolu nga xam ne boo ko kiiyee boo ko bàyyee rek dina daw barke sëñ Tuba nee na noonu noonu la noonu la def ak alxuraan comme ni nga ko waxee nga xam dañ daan taaxuraan yi alxuraan koo mokkal dañ lay géewal di la wayal di la fekk ngay ngay ngay fecc di tëbëkk dal billaahi kon day wane ni kon sëriñ bi foofu la noonu noonu noonu la mel noonu la mel ci alxuraan billaahi teg ko fu kawe kawe kawe uh-huh. moo tax sëñ Moussa Ka dégg mu ni mbaakul di bind di ko yët mm-hmm. saalum di bind di ko yët gànnaar di bind di ko yët mu boole ci ay mool di ca rax ñëpp xam na ni sañ Tuuba alxuraan dañ daan bind kaamil alxuraan dikk di ko ko jaay sëñ Tuuba kon mbaakol buy bind di ko yët ba pare saalum di bind di ko yët gànnaar di bind ko yët moo boole ci jënd ay mool di carax ca rax si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nee na bu nit ñi di nelaw mu di ko jàng sëriñ Tuuba mhm. koo xam du dox di nelaw di tëdd ci ay lal guddi cay kii du lekk ba suur day mus rek ngir boromam Seexul Xaadim mhm. bëgg alxuraan lool mhm. foo ko fekk mu di ko jàng mhm. kooku nag li mu ci def ak fa mu ko jëlee ak fi mu ko indi mhm. kooku bu ne lee yàlla may na ko alxuraan nag boo soxorul war koo war mën a nangu wallaay waaw boo soxorul rek war koo war mën a nangu njabootam gi ni ñu ko def xoolal taalibe yi sax ni ñuy jàngi alxuraan ak ni ñu koy def moo tax ku yaakaar sëñ Tuuba war ngay jàng alxuraan foo mën a toll kul muridin bi yaluusu fal yu dim tilaawatan bi xayri zikrin xadrusim waaye nag ko ak kul muridin biya yaluusu yes adu ki wax loolu mhm. moo waxaat ne kullu muridin biya yaluusu fal yu dim tilaawatan bi xayri zikrin xadrusim mhm. mhm. kon nag téereb yàlla bii daal képp koo xam ne aju nga ci mën sëñ Tuubaa dénk naa la foo manti tool na nga koy jàng kon bul topp xasaa yi di ba jàpp bañ a jàng alxuraan boo bëggee gën a jariñu sax da ngay jël alxuraan boole ko xasida nga xam ne ci la mbóot mi di gën a ñëwee kon xam naa dama lay delluwaat kàddu jërëjëf sëñ Xaadim allah na solo loolu comme ni ñu ko waxee rek wax Euh, alxuraan andi nga ñu ay ngëneelam andil nga ñu sëriñ bi ni mu def moom fi mu ko fekkoon ak fa mu ko jëlee ak laka ci suñu borom defal kon mel na ni kon waxtaan wi bu ñu ko déggee kon taalibe yi war nañoo bàyyiwaat bu xel bu baax a baax a baax wax xam ni sëriñ bi xayrul islaam gi ñu andil bi ci bayitam boobu mu wax ni dafa fas yéene lil Moustapha nawaytu ma yu jaddidu sunnatul garra wa inni ahmadu nga xam ni bàyyiwul benn fànn benn fànn ci ci ci ci lislaam te ay taalibeem waruñu ko jëfe bañ yaa bañu ba xam ne ñoom ñoo ko moom ndax yaakaar naa feeñ na feeñ na léegi ci ci ci feet yi boo xoolee weeru koor bu ñëwee danga nga naan xanaa murid yi doo ngay wor ndax seeni activité daanaka ci lay gën a bari lu ñëw ci lislaam daanaka niñ ciy fësee gàmm bu ñëwee noonu màggalu Tuubaa noonu yeneen bis yu yi nga xamante ni dañ koy màggal te mu am solo ci lislaam niñ ciy fësee kon nag noonu ñu fesee ci ci ci yeneen bis noonu lañu war a gën a fesee ci alxuraan bu baax te loolu suñ boroom def na ko. Mm-hmm. waaye daa mel ni ñi nga xam ne tey dañoo gëstuwul sëriñ bi dañoo gëstuwul yoonu murit di ñuy askanale yaakaar ni dañoo jël xaside yi teg ko ci aw kaw alxuraan. wala dañuy dañuy jàng xaside rek te duñ jàng alxuraan. te fekk li ñuy sëñ Tuubaa yaree rek sëriñ bi moom dafa wax ni. xam-xam bu ànd ak i teggin mm-hmm. xam-xam moom bu ànd ak teggin ak jëriñ nit ki mm-hmm. kasaratu riwaaye rek lay doon waaw waaye daanaka du am benn njariñ mhm. kon nag war nañoo gën a bàyyi xel ba xam ni alxuraan ak sëriñ bi noon lañ demee mhm. noonu la ñuy toppee waxtaan yi dinañ ñëw sax ci sëriñ Tuubaa ak sunna mhm, waaw ñu bu ko defee euh, yeneen waxtaan yi incha allah dinañ ci amaat yoo xamante ni sëriñ Tuubaa ak sunna lañ koy indi bu ko defee xam bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi moom sunni yu la wala wala bid bidaa bidaa yi waaw ndax daanaka comme bu buñ nee euh, murit rek ñu bari yaakaar ni wala bu ñu nee sunna rek ñu bari yaakaar ni dafa am fu ñu ko war a féetali dafa am ñenn ñoo ko moom ñenn ñoo ko war a dund fekk murid moom li sëñ Moussa Sall daan wax naan murid euh, sunna sax farata ci moom far yàlla barke Serigne Touba maanaam lépp farata ci moom kon tey lii lañ leen indiloon di gërëm baax suñu invité bi muy Serigne Khadim comme ni ma leen ko waxee woon rek dafa doon borom xam-xam boo xamante ni moom dañ koo war di di dalal ci yu mel nii ndax xam-xamam mën a jariñ nit ñi mën cee jariñu bu baax a baax a baax a baax ndax ndaw la fi mu jàngee comme ni ñu ko waxee muy Azhar bu Cheikh Mouhamadou Mourtada ku ne xam na ni ku fa jénnee maanaam borom xam-xam ngay doon te xam-xamam bi da cee laabiir loolu da cee woyof loolu maanaam nangu koo yaatal nangu ci nangu koo jëriñ kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la tawféex ñu ngi lay ñaan euh, nga daje cee ngërëmal Cheikhul Khadim te ngërëmal suñu tubaab boo xasee ba nag mooy yàlla gërëm na la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na la ñu ñaan suñu borom defal la xéewal yu bare bare bare bare bari comme lii lañ leen andiloon ci seen émission Dialibatoul Boudour di ko ànd ak ci Majmahun Nurayni TV ci dimaas bu ne ñu fas yéene koo ànd ak yéen rek euh, di gërëm bu baax a baax ni ñu ko waxee woon ak sëñ Baara ak sëñ Mbàkke mi nga xam te ne ñoo ne woon ci caméra bi euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf